jëm ci wàllum soppar ñu Touba jamono ji mën na la waa Touba ci kanam ñoo ngi def liggéey bu am solo te lii lépp Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci Ahmadul Bamba bindoon na ko ci Matlabu Fawzayni journal bi nee na waa Touba ci kanam lu jëm ci wàllum infrastructure routière ak lu soxal wàllum wér-gu-yaram gi ay poste de santé def nañu ci ab liggéey bu am solo ak ay teen yoo xam ne infiltration moo ko tax a jóg bâtiment R plus 3 ci lu jëm ci université de Touba lu ëpp juróomi junni ci lampadaire yoo xam ne installé nañ ko Touba ak carte yi nga xam ne yóbbu bi nee na Touba ci kanam du